leen ak jàmm ab musiba ma bakkumba moo xew ca almadi ab xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Hiba Thiam moom lañ fekk mu faatu ci ab appartement meublé bu mu nekkandoo woon ak ay xaritam ci xaritam yam fa nekkaloon bokk na ci ay doomu kilifa yu bëri yuñ xam ci biir réew mi ku ci mel ni Dame Amar di doom ci Ahmed Amar borom NMA Sanders ku ñuy wax Soxna Mbuub di doom ci Youssou Ndour ñoom ñëpp jamono ji yoon mu leen di wër ndax kat dañoo jàpp ni dañoo Sam nag anam yim faatoo nar naa indi coow lu rëy ci biir réew mi ndax kat dafa def overdose mu daal di wàccu deret ju ba tax mu jaare ci dal di ñàkk ba kanam jamono jii ñuy wax ak yéen nag gendarmerie bu Ngor ñoom ñoo jël dossier bi en main fas yéene amal l'enquête bi ci loolu nag ñu ngi wër ki nga xamante ni moo di Dame Amar di doom ci milliardaire bi di Ahmed Amar borom NMA Sanders Iba Thiam nag di xale bu jigéen bi faatu jot na liggéey ak Philippe Maurice mi fi nekkoon directeur administratif et financier bu ACT Afrique Group mu nekk ab société buy yëngatu ci wàllu conseil ak intermédiation financière ak wàllu marketing boobee société ma nga nekkoon foofee ca point E Iba Thiam mi faatu nag jotoon na am nationalité française jot na tamit am master ci wàllum finance boobule diplôme moo ko amee woon ca benn école buy jàngale management bu nekk ca Lyon foofee ca réew France mu nekk ab école de commerce française bu xamante ni ñu ko créé ci atum 1872 foofee ca Lyon mu nekk ñeenteelu école buy jàngale commerce bu gën a mag xamante ni nag bi ñu ngi ko appliqué fépp ci réewum Sénégal xale bu jigéen bi ak ay xaritam fexe nañ ba organiser benn soirée privée ci ab appartement meublé bu nekk foofee ci Almadi soirée bi nag ñu ngi ko organiser ci jàpp samedi ci sax xale bu jigéen bi di Iba Thiam jaaree ñàkk bakkanam ci ay anam yu doy waar li ci gën a garaaw nag moom Iba Thiam bi mu commencé di wàccu deret ndax overdose bi mu amee woon xaritam yi mu nekkandoo woon ci appartement bi ñoom ñëpp dañoo daw bàyyi ko fekkee sax moom mujjee woo sapeur pompier ñu daal koy jël si cas bi nag nuroo lool ak kaaw mannequin bii di Mati Mbodj bi fi décédé woon ci anam yu mel nii fii ci yam ak yéen pour le moment dinañ leen ko toppal indil leen ci yeneen i leeral